wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu euh, bokki jullit yi bokki taalib yi maa ngi nuyu sama bokk yi sëriñ Xabibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak mbokk yi nga xam ni moom la àndal ci liggéey bi nga xam ne kuréel bi tuddee seen bopp ci ndigalul sëriñ bi Touba ca kanam di leen sant it bu baax ci li nga xam ne noo ko bokk ngeen di ci yëngu taam ci ndigal boole nu ci di nu ci soññi ndax lii ngeen def ab soññee la mooy dikk wax nu fi ngeen ci toll leeral nu ci itam li ngeen ci jote weesu ak li nga xam ne nag moom ngeen am mébétam jublu ci ci waxtu wi nu toll ci wàllu béréb yi nga xam ni day taa ndox te nga xam ne eh, nawet bépp la baax ndax xam ngeen ne fa ndox di taa ci nawet ñaare fii lay yooyu di jure mm-hmm. ndax ku ko am ci sa kër sax doo tàggu ko yow waxuma nag bu ko dëkk bi amee mm-hmm. kon nag loolu moom buñ jubluwutoon wutoon ci màggalit defe naa ne loolu war na ci dëkk bi ndax dana may dëkk bi mm-hmm. wér gi yaram kon nag loolu euh, yitte ju kawe waaye sëriñ bi mooy koo xam ne euh, léppam dafa noppi amul lenn lu mu mas wéer ci mbindeef lépp ci sun boroom la ko wéer ñu fàttali ne sëriñ bi wax na ne ker euh, tegginam diggam ak boroomam mayu ko mu koy ñaan lum amut ba noppi mm-hmm. loo gis rek da caa dawal xalima ga ngir jaamoo ko yàlla waaye lépp daf ko ko may mosu koo bind. loo gis mu koy ñaan rek ca Matlabul Fawzayni xamal ne lu mu am ba noppi la. bokk na ci jumaa ji gis ngeen ni mu ngi ci biir. waaye Cheikh Mouhamadul Fadil mm, da koy nettali ñuy dégg. Euh, wax na ne bi ko sëriñ bi soññ ci jumaa ji daf ko ne loo ca mën na ko ci def. daal ko ne bu ngeen ko deful de sun borom dana fi wàcc ay mbindeef yu ko def. xam nga ñoom. la fekk na mu def ci ñoom la def ci ñoom. ñoom ñëpp ñu def ko muy seen yitte amatuñ benn yitte bu dul loolu ba tax na ñu defal ko sëriñ bi ba liggéey ba sottee ci seeni loxo waaye yàlla wàcceelu fi sëriñ bi yeneen i mbindeef yu koy def yeneen yi ci desin nag bay boo nu ni nu xam ne noonu la demee lu di bëggam buñ ko xamee bay boo ñu roy ci mag ñett a def nañ doon def mooy mooy mu mu jiite gis nga booba Euh, nee ñu gone sax bu ñaanal mag lim lay wax yàlla na nga fekk matuk jumaa ji xëy na loolu ñun bi ñuy biñ biñ daa tana xam fekk na loolu wees fekk na jumaa ji noppi waaye loolu la liñ daan ñaanal nit booba naal wu rëy la woo xam ne si jàppoon nañ ku fekk matuk jumaa ji mag ngay doon te yaakaar naa boobu bari na ci mag ñuñ bu leen fi loolu fekkee sax ñoom bu fa yemoon it ñu sant kon nag euh, ñun loola wees na waaye liggéey bi du jeex ndax li sëriñ bi ñaan ci dëkkam bi bari na kon nag na képp ku dégg sunu wax ji na xam ne seen bokkum taalibe moom la ay kilifaam ak i doomi kilifaam nemmi ko si woon di ko fàttali liggéey buñ bëgg a defal Serigne Touba man fas saa ci yéene def lépp lu ma mën ak lu ma mënut képp koo xam ne si itam euh, lu ma doy doy na la maa ngi xam ne lii doy na ma gisaguma ci lenn loo xam ne lu may xebat la wala lu may ñaaw njort te nag euh, ñetti at du benn bis te biñ ma fekk see baxdaat ak léegi noo ngi fi dégluwuma ci ñoom safaan waaye dégguma ko it te am naa yaakaar ci ne desu ko ci mas a dégg mukk waa te saa su ne itam may nañ ñu ko ci seen bopp lu nu gis euh, wax leen ko lu ñu gis itam ñoom ñoo nekk ci waar wi di ci sonn bu dégg bëccëg te du tee boo leen dee wax man am li nga leen di wax ñu gën la koo xam waaye am nañ dalug déglu la bu ko defee boole li nga leen wax ak lañ lañ xam jëfe ko loolu nag mooy may ndam di cib liggéey ginnaaw nag noonu la ñu mele na ñëpp góor góorgóorlu ci ndax nag euh, doon ko nag euh, buñ na màggalutoon it nii ma ko waxee euh, jële fi yooyu képp xeex ak yooyu ba taataay bañ fee nekk jar na ko rawatina nag ñu ñuy dugal bisub Serigne Touba bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne ba mu koy wax mag ñi def leen ne lu ma am yéen de may seen waaye te bis bu ngeen gis ñu ko fi ñu ko fi eh, wormaal di bisu waay la yéen nag may seen waay te bis bii lu ma am ci laa ko am xam nga ñu bari dañuy umpule ne bis bi bisub coono la waaye nañ nañ nañ nañ ci boole xam ne it mooy bis bi nga xam ne ci la natt yëpp jeex ñu ne ko fii ba àjjana dara loolu naqari ci sëg dundoo bu sëti ci la amee loolu tool koy noonu ñëpp ci war di sant waaw moo tax mu ne nag mooy bisam kon nag bis boobu bokk na ci ñun ñi dëkk Touba rawatina ñi dëkk Touba nun noo war a fexe fexe ba luy sonal gan ci dëkk bi ku yor otoom di ñëw mbaab sareet lu mu doon bu ñëwee nun noo war a jàpp ni noo war a fexe ba loolu jóg fi kon ku nekk ci dëkk bi yaakaar sëriñ bi war nga xam ne yaa war dindil gan ñi coono bi leen di bi ñu jànkoonteel bu ñu dugg ci dëkk bi kon nag euh, fu ndox di taa ñii ci lañ fas yéene yëngatu ba loolu lépp jóg fi kon nag na ci ñëpp jàpp mën fas naa ci yéene jàpp képp koo xam nit Euh, sama ndigal ngay déglu boo déggee sama wax ji nga xam ne waxuñu ko sànni dañ ko gëm buñ ko gëmutoon duñ ko wax. Mm-hmm. waaye lii moom dégg guñ ci te gisu guñ ko lu dul rek lañ waxoon ne moo leen tax a jóg ci loolu la ñuy kon na ci jëpp jàpp yàlla nu yàlla jàppale ci barke Sëriñ Tuubaa wajalilaayi maskani misras mi abijaayi xayri manabaat